naa dem bay xool euh, carrière yëpp yu am ci sable ci région de Dakar ak région de Thiès parce que yu am yëpp mooy côté Tivaouane Bambilor moo am ay ay ay sable ensuite après euh, au niveau de de de Kayar am na ñu dem léegi lu ëpp sax ñu dem bay bay Kayar tout ça il faut que ñu xool am na ña nga xam ne du ñuy gas ay carrière bàyyi ko foofu ensuite mu indi yeneen yeneen jafe-jafe donc ñun il faut que ñu ñu xool yëpp xool. Euh, carrière yi nga xam ni euh, am na sable yi nga xam ni baax na am na sable yi nga xam sable de remblai rek la war nekk am sable yi nga xam donc sable de construction la malheureusement Sénégal du ñuy souvent du ñuy utiliser ay sable de remblai di di si di si tabax mais en tout cas nous daan fexe suñu politique mooy am benn projet pour loolu ñu daan fexe bay ñu war a remblai lu ñu war a remblai bay euh, yenn jafe-jafe yi bañ a am si si nawet bi xale yi. Euh, bàyyi ma yi ak yooyu bañ a am problème donc je visite mardi et inshallah, allah après dinaa dem aussi semaine suivante dinaa dem ba Kédougou ñu wax dans si revenir daan xool aussi nan nu toogee ak nan nu war a mën a dimbale euh, notamment euh, les mines artisanales si carrière, est toujours wax nous ne bon c'est vrai carrière, yi y a quand même un gros problème au niveau du Sénégal amna ay maire yu bari ya nga xam ne ñoy ñooy euh, ñooy signé amunu droit signé ko mais ñom ñoy signé euh joxé ay carrière carrière lu lu nek rek si souf euh ça dépend du ministère donc des des mines donc ils n'ont pas le droit les maires n'ont pas le droit les les autorités euh, les autorités territoriales n'ont pas le droit de signer ay actes ya nga xam ni may nit ñi ñu ñu exploiter ay carrière donc sunu suñ ko gérer nous ko war euh, gérer normalement euh, yi duñ si am et c'est ça là le plus important il faut que communes en xamni fofu ni foofu la man man gis quand même euh, man man gis ni am nañu am nañu ay yokk ay et ça il faut quand même qu'on qu'on qu'on regarde ça dans revenir un peu wala mën naa sax wax parce que ñu wax nañu RSE ak yu mel mais nous ñun il faut que dépasser RSE am ben benn fonds ba nga xamni ni wax ni fonds bu ñu chaque commune ba nga xam amna euh, exploitation minière du ni duñu war dem bay jël 0,5% sen chiffre d'affaires jox ko commune boobu donc loolu tawé indi dafay changer totalement euh, situation bi loolu déjà mi ci si code code minier ñoo ngi bind les derniers arrêtés pour euh, man ko appliquer si 0,5% chiffre d'affaires tu ba am ba euh, am solo parce que euh, vraiment je pense toutes les toutes les communes mais déjà avec le fonds de de précaution fonds de de précaution au moins 5 milliards 5 milliards qu'elle nga xam distribuer l'ensemble des communes euh, ça vient des recettes que nous avons les woowee minières minière mom nous jël 20% des redevances minières c'est de commune commune Sénégal mais commune yi am nañu euh, euh, ay ay gîtes ñoom ñoo gën a euh, ñooy gën a am que ñeneen ñi mais donc il y a une répartition bon xëy na ministère des finances dañ si répondre tout à l'heure am na maire yu nii jotaguñu jotaguñu seen seen recette lu daaw bon mais je pense que am na am na ñu jot je pense au moins y a y avait enfin je pense y avait deux arrêtés interministériels en tout cas am na ay communes yu yu yu jot c'est euh, une répartition répartition une fonds de précaution ah, je pense ah, c'est donc euh, moom dañ si dañ donc ren a préparé euh, l'arrêté interministériel arrêté avons signé le koy signé ministre des collectivités territoriales avec le ministre des finances nous avons signé pour vraiment commune la commune Sénégal yop département Sénégal euh, mansi le euh, problème pour nous poser, mooy problème problème mu or bi waxoon déjà au niveau de la de la commission bon ministre des finances aussi xam naa dañ si au niveau de la de la de la commission si problème euh, or mais mais euh, question pour nga ça concerne ministre de l'artisanat ministre euh, des finances ak ak dans daanu toog ñu wax parce que nous, nous nous nous les artisans nous, nous il faut que ñu bañ a fay TVA ñu ba ñu fay TVA fii si Sénégal donc loolu moy indi problème dañuy suñu TVA alors or bi dafay gën a cher que loolu ñu koy à Dubaï wala feneen donc c'est loolu moy indi euh, jafe-jafe yi et je pense que ñu ngi ci liggéey xol ban solution nous nuy nuy utiliser mais euh, ñi nga xam ñoo ngi liggéey en tout cas si or bi euh, industriel or bi ñoom d'accord nous pour pour jox une partie. Euh, fii bàyyi une partie fi si si Sénégal mais le problème moy suñ ko bàyyee fi euh bi dafay euh, dafay bon quand suñu appliqué euh, TVA bi euh bi dafay dafay am solo et à ce moment là pour euh du nek du rentable donc ñoo ngi waxtaan et ministre bi xamna dañ si dañ si revenir mais c'est un problème aussi important parce que ñom chaque fois il y a des comptoirs amna ay comptoirs yu ñu ñu mais il faut que pour